waaw salaamaaleykum waa Thiès kaay benn dëkk ñaari gaaw ñaari gaar lu fi xew bi nga xamante ni mooy émission Fat bintu nee naa leen bàyyiwuma kenn nee woon naa ku ne naa dal sa kaw euh, Ousmane création na defoon naa première euh, première partie ak moom dañu ko yeggale fii ci manufacture des arts muy xale boo xamante ni dëkk Thiès kaay lu ne lay ñëw macha allah Ousmane kaay Ousmane na nga def. maa ngi lay nuyu Fatou Bintou. yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant bu baax. waa ñoo ngi fi Manufacture des Arts luy wax ji sax lu bari ndax dañoo bëgg a dugg ci biir Ousmane dañoo bëgg nga dugal ñu ci biir ñu xool commencement bi. tata duy naa la maa ngi lay fay kii ñu gis sax nee naa leen mooy uus kii toog mooy yaayam tataa dama la naan sa doom ji li mu def nii ban mbégte nga ci am. naa kontaan nag ak xol bu sedd guy nag te mënu wax bintu sama xol dafa sedd ndaxte boo mu nekk doom ju neex a jur nag macha allah ma koy ñaanal nag. gudd fan ak wér yàlla bàyyi ko ci suñu kanam bër lépp lu mu mbébét rek yàlla na ko yàlla eggale xam naa ni kii di yaay Ousmane mënewul wax kon léegi dañuy doxantu ci biir daa di jël ñeneen ba ci kanam ñu dellu siwaat ci yaay Ousmane nee na tàntaam la bàjjanam la jaamam la waa li Ousmane def ban gis-gis nga ci am. ah xanaa kontaan ci rek ndax Ousmane moom xale la xale bu yaru naan xale bu yaroo mën a ànd ak ay mag. usmaan ba mu juddoo ba tey nii la mel tubaar fakàlla macha allah dama koy ñaanal yàlla li mu tànk yi mu dox yàlla na ko si yàlla defal jàmm yàlla na ko si yàlla defal jàmm yàlla na am ci lu rafet njottam ci liggéey bi muy liggéey kontaan nañ trop dama bëgg Dakar laa jóge nii tubaab fakkaar la bëgg rek bëgg rek daal kontaan nañ trop nag. waa nee na moom Dakar la jóge ñëw ci émission bi nga xam bi nga xamante ni mooy lu fi xew nee na muy tante Ousmane kon dañuy daal di doxantu ndànk ba ci biir rek nee naa lu fi xew nag man faat Bintou bu ma ñëwee dama ko def buzz kon nañ dugg ci biir. ñëpp bokk ndey ak baay sama émission lu fi xew nag damay waxtaan ak ki nga xamante ni ma ñoq ba jaan ñu gën ko xam ci aada ngiri xalé bi nga xamanteni dafa ñak ki ñaan foko wo woo mu wuy la Ousmane tudde ko bis bi mu ñëw wuy ci ko salaamaaleykum. maaleykum salaam salam fat maa mag leen di baax baax di leen siyaar di kontaan bu baax ci invitation be mais namu naa la de. man raw sama jigen deg na yow lañ tudde fi wa gis nga Ousmane de xam nga rek da delo bu mu ca boy boy ga. <laughs> da di and ak sa delegation kan ak kan nga àndal. comme ñom Ndeye jaay Samba Troupe Papa Diop fa la ngi ni ah Samba Troupe ñëpp nga ngi fi ah ñu ngi fi ñu ngi fi waaw. waaw waaw waaw kon ci kanam ki nga xamante ni nag mooy Diop Fall lu ni fàng kenn du ko jeex ki nga xamante ni dama ko doon wër di ko seet muy sama xarit Diop na nga def. yaa ngi ci jàmm. waaw. waa léegi eh, ki nga xamante ni waa nee Fall dafa gëmëntu ki nga xamante ni aada ngir yi eh, ki def ko dañ ko tudde bis bi mu ànd ak yow ñëw. waaw loolu rafetlu nañ ko torop man dama gëm dama doon nelaw nii. nelaw yow munoo bàyyi lo def ràcc théâtre ma mais nit la quoi ma suñu frère la suñu la donc defal xewal bu baax a est-ce xam nga ni Mak euh, Mak info ci émission lu ci xew dinañ dal sa kaw maa ngi leen di xaar may xaar kon maa ngi dem saaga yow tamit damay fayu na nga def yaa ci jàmm waaw maa ngi ci jàmm nag bu baax a baax nga ak sa doomu sa xarit di kombe Euh, Ada Ngiri le 12 création tudde ko tey bésam bi ngeen ñëw nag ndax xam naa dinaa dal ci seen kaw ak lu fi xew ak Fatou Bintou yow jàppal ne tey noo dalee suñu kaw rek noonu la ñuy fayoo ndax tey suñu bés la tey ñun ñoo moomee ndax euh, ku tuddee ma ñoq bajaan jàppal ne comme nga tuddee ndax ñun dañuy sot ku tuddee ma ñoq bajaan rek da ngay jàpp ne comme nga tuddee ndax tey moom bés bi narta ma euh, yomb ko comme ak ma ñoq bajaan rek non non tey du yomb ah. <laughs> non non mën a yomb kanam mooy bouton na nga def waaw ah, maa waay iya, ah. nga ni yaa jamais. 203. ah waaw. waa da nga ànd ak sa doomu ndey sa mbokk artiste ñu tuddee ko nga ñëw wuy si ko. waaw loolu am na aada day sunu doomu ndey day sunu lépp nag tey mu xëy la bis bu rëy bis boo xamante ne ni tey bis bu rëy la ci moom daal ñu tuddee ko tey mu wax ñu ko tey ñu am pour jàppale ko si daal te aada dafa nekk nit ku baax ne bokk nit ku yëg nit nekk nit koo xamante nit ku exemple daal franchement parlant ah. waaw soxna si na nga def yaa ci jam ki nga xamanteni muy aada ngir ñu gën ko xam ci ma ñoq ba jaan xale bi nga xamanteni moy mooy Création daf ko bàkk mu ñew nak and ak délégation bu takku néna ko dom pat sax ci sot la mu ñew and ak délégation ñu wuy ci ko soxna si na nga def yaa ci jam waa li nga def ah.

waaw c'est-à-dire aada dañuy suñu frère di suñu doomu ndey Ouzo aussi même chose donc bu ko tuddee aada dafa mel ni ñu la ko tuddee parce que aada ñoo ñoo bokk lépp lu ñu def donc yoon la ñu ñëw ànd ak moom teewal Ouzo tamit waaw loolu rek moo waral suñu teewaay. mbaa di ngeen wane seen bopp. waaye incha allah xam nga ñun moom ci wane suñu bopp lañ dëkk donc waaw dañuy dañu wanewaat suñu bopp incha allah rabbi. waa sama mission bi nga xamante ni lu fi xew nee nee naa aada ngiri muy ma ñoq ba jaan maa ngi ñëw te dinaa dal sa kaw. colonel Samb maa ngi ñëw te damay dal sa kaw. bu baax colonel na nga def. Euh, yaa ngi ci jàmm. mais colonel ki nga xamante ni sarak la. nga jiitu ko ci ñaw. tey moo organiser fii bàkk la nga wuy si ko. alors dama jaajan ni xale bu loxom setee mu mën a bokkam ne kenn muy ku baax di ku yaru koo xam ne lu ko yaram mayul rek xañ na da ko gisul mais ku baax la sama rakk la sama xarit la sama lépp la ku ma bëgg nag teg ci moom bon nee naa ko woon boo wootee àllum kaañ sax mu xuus ñëw ndax sa baax ak sa yaru colonel mbaa pare nga pour ma ñëw bàkk si la waxanteeg yow lu baax ak lu fi xew ak Fat Bintou xam nga ne yaay man maa yow yow loolu ci yow la des mbaa pare nga waa kon bul wax dara ki nga xamante ni moy papa Ousmane Ousmane création euh papa am kérok bama fa démé diko laaj dama ko ni tons ndax di nga balsi tons ni ma inshallah dina balsi kon tons tay lam waxon waxoon ko tons nga def. ma ngi fi rek mais xol sama tons costume bi mu def def ko chemise mais tons yaa ngi ba ma sa monde de. <laughs> waaw waaw. wa loy ñaanal nak sama rak ji. waaw comme li la waxon rek yalla la fal ko ciat rek. xale la amna jom ta jambar la ta bëgg na limi def. kon nañ ko encouragé rek yàlla defal ko cat mu fu mu bëgg a egg mu dem foofu waaw incha allah. allahumma amin euh, boo xewlee sa papa ak sa yaay soutenir la ak say mbokk nee naa dafay neex kon tonton ki nga dendal damaa bëgg a wax ak moom tuuti. nee naa leen émission yi ma mus a def yëpp barki démb ci jali laa jugee yëpp neex na lu fi xew ak Fatou Bintou nee naa dinaa dem ba Mbour seeti ki nga xamante ni mooy xaadim. ki nga xamanteni dafa soutenir Ouz jappelé Ouz tons na nga def. ngi fi bindu. yaa ngi ci lan. wa ma ngi sa dama bëgg nga juk taxaw ñu xol sa model bi rek dimbali ma rek dama la ko ñaan. wa model bi. ta nga wax ma ku ko ñaaw. sama cameraman dama bëgg nga xolal ma li ki nga xamanteni moy mooy Ouz création moko ko neena la machallah mën na ci xalé bu jigen mën na ci xalé bu goor mën na ci pa mën na ci meer dañ koy ñaanal xale bi gudd fan ak wér gu yaram ci barki Seydina Mohamed ki nga dendal nag moom umpaañ na nga def. yaa def si euh, eh, nga ñëw euh, wuy si ki nga xamante ni mooy Ouz Création. waa muy sama rek yëg nit fonk nit. ah di xale boo xamante ni wax dëgg yàlla euh, fonk boppam parce que fonk boppam moo ko may tey lii mu am franchement xale moom comme on le dit rek su loxoom setee mu mën a bokk ak ay mag ndap te comme le disait encore Madiba paix à son âme un esprit sain dans un corps sain forme toujours une formidable combinaison te tey moom ous loolu la confirmé daal. ah macha allah kii wax na lu rafet ci Ousmane. kon nañ doxantuwaat ba ci biir rek. ak leen loxo yi président yi ak loxo yi fooy yaa ngi naaw ak leen loxo yi ak ñu koy jàppal si noonu aussi ak programme yi naaw président yi ak loxo yi léegi bi ñu ajee ñuy toogaat ay français toog tamit xool xalaat xalaat xalaat xalaat Souleymane Souleymane ñëw gëm président France ñëw yow daal ci gàttal réew mu ne naan maan maan maan maan ba mu des nag ah instant bu baax ci ah dëgg-dëgg rek nga xamante ni ah président la tous les Sénégalais ah président président Macky Sall noonu rëy Macky Sall bi mu toogee xool xool xool xool dégg maan gi Superman Spiderman mu ne Souleymane muy xale bi nga xamante ni macha allah moom it li ma waxoon colonel Samb rek laa koy wax lu mu ñëw mu rafet ji bi da nga def. sant yàlla. yaa ci bu lu ki nga Création dafa def première édition daal la koy tuddee Andaksa ñëw ànd ak sa délégation bu am solo. ndeysaan waaw Ousmane day sama rak mu téeri bëri nañu Cees mu bàyyi ñëpp déplacé wu ñëw ba si na ma yaay sama tuddé mo bis kon bisu Ouz du ma def du ñew tew jappalé ko ci bisam bi parce que bis du tout tamit borom lay toolool te maak Ousmane suñu relation du li moy bolé bimu mu nekk xale daan sam place bëggal ma bopam bëgg li liggéey kon ndam rek lay gis ci mom ndam rek lay gis ci mom motax ma def tay délégation bu baax and ñew jappalé sama rak dibi ndjay néna dafa def délégation bu reuy ñëw wuy création dibi ndjay dama bëggon nga juk taxaw rek nga wone li nga sol Jibi ndjay def na dam bax est ce xam nga ni Jibi ndjay lu fi xew bu mu dalé ci colonel ba paré dina ñew ci yow. waw mbaa yaangi paré sa émission ak Fat tu ba mu neex. ak ties Info. ties Info maa ngi leen di bëggee di rafetlu seen liggéey di leen wax ñu ngi ndaysan ñu ngi génn jeune talent yi di leen woné aduna wërgal képp di leen gis kon loy sante yalla yokkute ties la ma ngi lay xaar bo def ba ratch

laa bëgg nga bokk bàyyil di werante ak man man su ma la waxee da ngay xam ne loolu ma la wax la yow li nga wax amul li ma wax man. même même ñëw. kii ku ko invité. waxuñu loolu de. da nga naan rek yow bu la yàq xew. da ngay dégg. donc xoolal rek. waaw waaw li la war a jël daa ma jël dafa lu doon neexoon sa sama garaamu. sa suma nee nii. yóbbaale bi ngay daw di ñëw ah mais sentiroo non non andu mu quoi waa ci micro bi bi ngay daw di ñëw kaay amul la xëy am am lu leen di dal ah. man loolu dama ci wax kon léegi teg leen ci taa rek ok xam naa yow ok waaw loo leen jotee laa bëgg a xam dafa am lu ñuy waaw trois ans ngi nii ñu koy werante ah ma ne xaaral ma dem ci boutique bi defar sama ndékki lu baax dëgg la dindi sama meewu koobeel eh booy kan dama lay laaj booy kan <laughs> lu tax sama meew koobel. meew koobel koobel. ok bi ma demee ci boutique bi jënd sama meew koobel. ñëw fas yéene ndékki taaj ko fas yéene ndékki. man damaa bëgg nga gaaw ci wax ji li ngay lem lem la xalaam laa fii kenn nëbbu la fi. waaw ma ñëw. boobu man Thierno mi ngi sama wet. déglu la tuuma. Eh, eh. déglu ma wax. ok. bobo sama kayam mi soo wet jël sama kayam damay jàng en même temps ma ngi ndik moo bi première passe deuxième pass troisième pass quatrième pass cinquième Basir yo da nga réew ni li ngay ubbi ci pass lu mu doon ceeno xam nga affaire dama demee dama xëy fajar naka laa jàkkaarloo ak ndox mi brise de mer bi dugg ci ma eh ndox man ndox robinet moom brise de mer doo mo ba maa la laaju wa ndox robinet papa yaa ngi dégg. bu ma brise mer bi dalee laa xam ne sangu pour taar la bu ci dee naree am nu ko ko. papa sanguwuma. Ah, ah. papa sëlmuwuma. papa borosuma ndax sedd bi rey na sept cent quatre vingt quinze mille personnes fii sa Chine. non mais ko maam dama jàngal nootul ko nootul ko trois trois comprend trois part mun naa ko de mais yaa ko jàngal nootul ko yaa ko jàngal man noonu dee ko ni nootul ko comprend trois part la tête ñu déglu mosoo gis puubi glace <laughs> ah loolu loolu moom da laa fay puubi glace foog nga ko mos a gis mais yow yaa la tey teel na du def. loolu la ko demee. wala xamante ni sunu mu ma. Ah, ah. damaa gën parce que Alassane Gueye mu ànd ak Ndeye Ndiaye ñu may ma 1000 francs. Ah, papa maa dugg ci biir ginnaaw warga suukar naanaa. alors wax leen ci Ndeye Ndiaye de. est-ce que xam nga moo nekk kooku noonu naan teg teg. vivo nisso, Ronaldo. Vou te correr, Ronaldo. Não vou brincar. Não vou nem nervar. Tenha la waaw daa ko toog léegi boo jëlee sama war ka suukar jënd naa naa jënd pasti tàngal baala gay bàyyi ma ko jënd naa ba jëndaale cib jokkeer jënd naa tak aju nu mu sax jëndaale naa sax. jarno jarno bi nga bi toj na yow li nga jënd lépp foo ko laaya papa fekk mu ne ci biir nga toog ma joxoon lii wul nga naan. maa ma ne fuux fuux fuux ne ko waraax. mais loolu bi li nga jënd. benn question dafa am ku ma laaj dafa am ku ma laaj fii benn affaire. Euh, booba day mi ma koy wax. ñëwal. papa da la laaj. sa papa xam na lu ne. waaw dafa am ku doon laaj fii nii rek maanaam ñu doon défilé fii. Ah. yow lan moo la gën a neex ci ñoom jigéen ñi doon défilé fii. non jigéen dafa am sarmat. jigéen la jigéen bu dee dox ay weem day yëngu. daa war di yëngu mu di ko xoos. ah des fois nga gis sax kii mun xaw laa nëb waaye gis naa waa joo xam ne mi ngi dugg saa ñu. mais wan wan ñu booy def de dangay nootu góos li xam droit lii mu doo xóor yëg dëmm yi rek daa daa di def nii nag daa di def nii daa di def nii sa daa di def nii Apa? Ya ya ya wa iki bingung kok. Wa iki bingung kok. Ya moom Ya man musuma laa ji. Yow Ram Ndiaye moo la Sama papa moom. Yow doomu Ram Ndiaye la. Papa yaa saya. saaga. Saagawuma kii doomu Ram Ndiaye la ma gën a neex ci jigéen ñi. Eh, papa lan moo la gën a neex ci jigéen. Eh, yéen tey laa leen wax li ma gën a neex ci jigéen. Eh, papa wax ñu lan moo la gën a neex ci jigéen. jigéen ju teg gën a faa safuma. papa lan moo la gën a neex ci jigéen. baax sax safuma ci jigéen. ngi défilé Ouz création bi maa ngi dal ci baay Bas ci turub yeete waaw sant alhamdulilah. yaa ngi yaa ngi ci jàmm. waaw sant rek. waa ki nga xamante ni Ouz création da leen invité ngeen ñëw ngeen def fi lu doy waar. waaw euh, Ouz moom dafa nekk suñu xarit nekk suñu seex wax dëgg yàlla bëggal ñu boppam lool euh, nekk xaritu comédien yëpp donc bu xew xewlee mënuñu def lu dara lu déplacé wu ñëw. Euh, def suñuy affaire rek wan ko ko daal parce que loolu lañ am comme cadeau buñ koy mën a jox franchement ma ànd ak sama waa troupe muy troupe te ànd ak Thierno ak euh, Baye mi doon joué léegi léegi waaw. waa émission bi nga xamante ni mooy lu fi xew nee naa bàyyiwuma kenn bàyyi ba pare nga pour ànd ak man ci émission lu fi xew. Euh, dama ni dana mel na nambe banaana. nañ ci dem. bu am lem. bu <laughs> na def. waaw maa ngi fi liggéey. Thierre gis naa la léegi nga def fi lu doy waar. ànd ceeg ki nga xamante ni mooy mooy Ouze création ak Baye Bass waa Troubiété. waaw ok waaw ñu ñu ñu ñëpp di sant ñu. waa nag micro bi nga gis mooy. Euh, <laughs> Thiès Info nii dama leen xoolee damay damay kontaan micro bi nga xamante ne mooy Thiès Info mooy wax ak yow muy émission bi nga xamante ne mooy li fi xew. Mm-hmm. waaw émission li fi xew tamit dañu ciy gën di kontaan te waa Thiès Info yaakaar naa ne ca kaw ca kanam yàlla dogal Ouz création bu mu xewlee doonoo xaritu artiste comédien yëpp loolu moo a ñu teew ci bis bi. waaye comme ni nga ko waxee sànq Basir rek fas yéene noo ànd ak yow ci li ci xew. Ah. booba dina mel ni lëmbalu vampire lii ma la ko wax. Ah, kon léegi damaa bëggoon rek ngeen nga jàppal ma temps ci lu fi xew. waa xam nga li fi xew daa xew ci jamono. yàlla dogal ni lu xewul nekk fa lay xewee. te bala nga ko mën a xam dëgg. Ah. bis jot ba nu ñëw toog ci li waa li fi xew. lu xamul leen li xew ci àdduna yëpp parce que nous sommes des experts. dégg lii kon man pare naa pour ànd ak yéen nee naa bu ma jugee ci colonel Samb.

lan ngaa ku ne booy toog def ci lu la neex waaye fël-fël ma nga wa wa waaw fël-fël ak na ci lu fi njëkk. Ami Ndiaye man jaaxaloo ma sama maam bu jigéen moo njëkk a jël élection miss fii boobu ma ngay lax ba foo fu ne mën nga faa jàpp ci moom fii. sa sa maam bu jigéen. boobu ma ngay kuy dox rek kéemaan la. yow xam nga lu ma neex ci yow. <laughs> ah waaw wax yow da nga yow da nga fen bu nduróog jargoñ xam nga jargoñ yooyu yow kon gis nga sama maam noonu la daan doxee waaw yow mel ni kuy fënki laa lay wax sama maam da daan fënk waaye yow da ngaa mën a fen loolu na daaloon eh yow ni ngay reetaane am na doole de maa doo xaar fukki ne sa wet reetaan nag naa la ci wax ñaari sëkk yow déggul yow loo waxaate nii. yow yow loolu yow yow yow waxal rek yow yow bu nit ñi dégluwul waxal rek yow yow deel wax deel wax rek. ñaar ñoo am di reetaan. waaw. waaye waañ nga bis bi de. bàyyi wala sedd bi la bàyyi sa yaram. xanaa xamoo da koy jox benn waajoo xam ne ni daa mën a doxaan. waaye waa ji lu muy mën a doxaan mën a doxaan. mënul maîtriser nen. Menu gina. Ih, wajib menuju dah. <laughs> Dijalan wajib dapat tuang di tokan, di tokan, di tokan, jeki jeki lagi nak di dia nak cuma lagi. Wow. Wajib dan takut sama. Waktu waktu menen sok nak cipan nudus menek. Uh-huh. Babu minggu bag eh, kira tu. Ama japa nunggu, reta tak tua boleh wala japa, nusino dah kaya pelangkir. Wow, wuyu ma <laughs> yow oh, kooku xeeral la. xanaa xamoo gis naa nit ku maquillage ba ba muy reetaan ba muy njëkk a geesu daa reen di ko mu dee. yeggaleel gànnaar yeggaleel gànnaar gi ba pare. yaa ngi woon ci dëkk bi yaa ngi waa ji. waaw waa ji def. waa ji. yeggaleel la pour di nga ne. eh eh da ngay def naan naan de. sum-sum gi ngay naan bàyyil sum-sum xam nga man gis naa couple boo xamante ni ah, ñooñu waaw ma takk maam téere maam yàlla ah dinañ jur vagabond yàgg la nenu ginaar gi ba pare ni jaay loolu du foofu de waaw gel bi yoonu duus bi loolu gel bi wan ko ko ba muy ma nga yëndu waale nii <laughs> dellu waale ngudu gi naan nii nii dox ah te loolu di gis ginaar gi ci biir ak deni nii la doon dox xam nga lan la def waaw daa ñëwaat ba ci gel gi nag toog tuuti jékki-jékki rek nee ko damay ñib gel bi nee ko lu tax ya? ngay ni ngi ya, ya, eh? mhm. di bu fi tam fu damay la sama walu? may tudd <laughs> yow eh waa ji kenn yoroon bëri almet rek loolu feebar ah wuy ma daanoo bëgg a dafa mel ni dafa am luy ngelaw luy dal sama kaw doo doo doo delloo sa gannaaw gi tuuti rek expliqué ba yaay boo bëggul mas ba't ay tigente mo no mit reasonen? Kuha man. Kuha di sa akin. Kuha. Sa akin, kung ano na mo no mo ba? Nung papiolin mo. Ang Air po ako na ba? Wali, kuha. po, es ka po kaya bigay bala Nok na yun, bala mo Wow! yun xam nga yow waaye waxee nan nga yow dama ndax. waaye la jël dugal ko ci poos bi. ñëwaat toog ci gel bi. nee ko daal man gis naa ni damay ñibbi quoi ndax toogaay bi daal neex na doy na daal léegi. waa ji jóg ci dem. bu eh, baax bu baax. wuy ma ne lii baaxal ko wala nga om nag. ali eu tô confiante. É, caramba, só aí. Vou Eh, eh, eh. Eh. Leve ni kuno maiseni. Boy. Aisha nyaule nyaule. Yo, eh. Yo na kwa ira kado reve sa adu na yo. Ya kaudi diskurdo kwa eh yow eh njiitu Não ci Não tudd Não Thiandoum Não na Não yan Não yu Não yi di laa wax de Não kii Não promotion bu mag Não nan la tudd Não Weah Não yow sa weyaa Não George Não la Não moom Não ko Não de Não ubbi Não karaaf ndey ma Não sa Não ndey Kalau susu ya. Ngasal kan? Oh bisa kau benda ini. Eh kau bah. Aku rapi deh. Mau ada ngasal kan? Oh lagi jadi jam lem tak ada lem. Kami halon. Wah, kalau ini di usni pun kalau aja, ya lu lagi nama markas apa? Nama tadi nelayan ku ada di istilah dari jum dari tak ku ada di nyawa ku dari rapi ku. Ku. like, Jangan, full dari jangan. bangko tayo, pangalan. Makakaraso tayo. Bang, bangko tayo. Tindakan tayo, kutrasol tayo. Lumayan. Best tayo. Ut. Baba, nagtiyak na ako. Tiyak ko, baba. Pagkaya na kami nilikan din yun. Naman pag umuubat ka. Yung kanya, yung kanya sa magkakas tayo, baba. Thank you. Bapak jo yaay bandi bandi la Baba jo moy rasta rasa lah Bapak jo moy bandi ko bala Bapak jo yaay bandi kok banga kok nga ko nga yo Baba jo gamandi Yo mira kok ni kok yo ya Nah, apa tadi kita lagi orang ikut jalan. Iya, nah, yang pun tak lama bikin lagi. Lain lalu kenalan deh. Nangalan deh. Malah mereka kita mau biang deh. jadi ber, nak ber. Kita lagi ya kay Isma kay Roy, Isma kay Roy, Isma man, gimana Isma? Isma kay. Wow! Kalau mau bernyata, menakan. Ayo mum, yo gana pem. Yo kana dom fara marit tayo. Yo kaya ti bok na yo de. Pem pem pem pem. Ano nga? Mabuk mo ni. Ano ko ba yan? Um, xam nga journée bi tey yow lañ ko tuddee ah dañoo ko tuddee nag moo tax mosoo sama lu fës tey nga nekk nag tey liggéey bés bi ah ñii ñoo ko jaay tey ñoo ko jaay yow kaay bi nga def bii sax tey ñoo jaay ah loolu des na yow lañ tuddee liggéey bés bi te li yaa day liggéey bés bi tey dangay ñëw bii nga taxaw bii nga def sa témoignage nga wax kala kan ngay gërëm ak kala kan ngay sax maa gërëm sama yaay di gërëm sama baaba di gërëm sama ñoom tànta ak di gërëm gërëm moo ko gërëm di jëm ak gërëm moo ko damay paquet kon waxal ko dégg di gërëm sama ñoom papa di gërëm ñoom sama tante ñoom ñëpp di gërëm ak ñoom Fatou Bintou Dieye di gërëm ñoom ki nga xamante ne mooy ñoom Jibi Thiam ñi nga xamante ne ñoo jàppee combat bi yëpp ak ñi nga xamante ne ak ñoom Mamadou Ndiaye ak ñi nga xamante ne ñoom ñoom kii Isaka Ndiaye ñoom ñëpp nga xam nga ah, xool tili yi xool tili ana tili ak ñoom ci biir xew bi gën a bëri tili ana ko Kalau kalau Sila mani. Kolo kolo ka Eh ma. Damagin. Kolo uji. Next one damagin. Mana kolo gitu punya. mau tidak nih Banyak kanan dia. Mau ni Fat ak Ouz barke mi ma ni solal te def nako naga def maa ngi fi. yaa ngi ci jàmm. maa ci jàmm kay. nga yor sa ciseau rek di def ba mu baax. waaw yaa ka laaj. mbaa xam nga ni yaa ak Alaaji Njaay dinaa dal ci seen kaw. ñu tamit dañ dal sa kaw. ah waaw. te nee na sama prochaine émission kat nee na moo may sololaat. bul wax dara yow maa lay solu dàq li sax. ah kon neex na. li sol nii nag. moom moo ma ko ñawal. muy rakk Alaaji Njaay. soppe Serigne Babacar. ne woon naa ko dinaa dal ci sa kaw te dinaa dal sa kaw ak émission lu fi xew ak Fat Bintou dama bëgg ñu dox ndank ma jël Abdou Jojo ñi nga xamanteni moy association les jeunes de tailleur nga xamanteni Abdou Jojo ñu def sen délégation ñew Abdou Jojo ñu ngi lay nuyu. ma ngi lay fay bu baax. yaangi ngi ci jamm ma ngi sant yalla bu baax. Ah, Abdou Jojo ki nga xamanteni moy Fat Bintou dafa am émission bo xamanteni lu fi xew la euh ah, bayiwuma kenn neena ku ne damay dal ci sa kaw bu yabo nga pare xamna ni dina dal ci sa kaw. waa seen association bi ban année ngeen ko formé. waa da di lu bees sax loo xamante ni day door a judd. comprendre ay ay jeunes lañu boo dee xool kenn du ci mag ñu nekk Thiès bugg a sukkali Thiès yoon la ñu dajaloo euh, defar Thiès ndax suñu loxo la nekk te bu soobee yàlla euh, loo xamante ne la day day day jëm karam la incha allah ba pare euh, bokk ci suñu jeune frère la dafa bokk ci ñun. dafa bokk ci ñun donc bu xewlee euh, waa association bi ñëpp ñëw fekk si ko mooy suñu mooy suñu wara man dama naan li ngay daw di wuti ji Ndakaaru Ndiaye mi ngi fii Thiès ñii ay xale yoo xamante ni macha allah boo leen joxee vax ñu ñawal la boo leen joxee jasneer ñu ñawal la nga defa ni foofu la ñu yem ñu ni déedéet ñoo ngi téere góor yi ñoo ngi téere xale yi macha allah damaa bëgg ki nga dendal mooy Jibi Ndiaye. waaw asalaamaaleykum Thiès Info maa ngi leen di nuyu. <laughs> comme ni ko président waxee rek dañoo sumb benn affaire bëgg l'union fait la force mbooloo mooy doole ñu ànd liggéey te comme da ngaa confirmer li nit di daw feneen di ko wuti mu ngi cees ki tamit doon suñu rak mooy ni mu la ko waxee sànq bu xewlee dañuy bàyyi lépp ñëw li ñu sumb nag yàlla nañ ci dugg ci bisimilah génn ci alhamdulilah ñu sumb ci loo xamante ni ñun ñëpp ñu déggoo booloo doon benn ànd liggéey sukkali cees yàlla baax na yàlla na ci yàlla dafal ceet daal loolu la ñaan comme ni ko président waxee rek man nag dañ nan ma Ouz ndax xalé la ndax Ouz ndax mag la ndax Ouz ndax paa la nee naa Ousmane sek gi nee lu ni fank ken du ko jeex Ouz dama bëgg nga jàkkaarloog ci Info wax ci lu reuy ndax nee na la barkeem bi may ñëw di def ak yow avant première waxon na la dina dal ci sa kaw. wa ma ngi lay nuyu Fatou Bintou di la ziar euh, di nga xam di la wax tamit wa ci Info ñu ngi leen di gërëm di leen sante bu baax baax di sante sama ñaari gënaay Abdou ak jibi ñu ngi leen nuyu bu baax te xam lépp ñoom la lépp ñoom la ñoom ñoo ma poussé si lii maa ngi leen sant daal bu baax maa leen sant bu baax gars yëpp jàpp nañ si kontaan naa trop moom waaw yàlla na leen yàlla fay daal waaw yow tamit li ngay yootu yàlla nga si jot moom nag macha allah melul ni man mi nga xamante ni dama mën wax macha allah moom mënul day jéem yàlla na la yàlla teg ci yoon ngeen ñëw wuy si seen rak waaw loolu moom c'est vrai te loolu mooy sunu devoir aussi parce que comme que ñoo bokk aar bi ñoo bokk métier bi aussi war na képp ku ci xewle aussi ñun ñëpp ñu taxaw jàppale la loolu mooy sunu tànk defe naa l'essentiel bi euh, sunu grand Abdou Abdou Diodje wax na ko léegi mooy que ni dañuy dañuy bëgg a euh, créer benn affaire bi nga xamante ni amaana dinañu xaw a dimbali tuuti ñu xaw a révolutionner tuuti sunu métier xaw ko jox valeur bi mu mérité c'est justement loolu la ay jeunes lañu euh, mu am lu ñu war ñu war a jëriñ suñu bopp jëriñ suñu réew aussi loolu dong mooy cose bi defe naa léegi sa euh, grand bi am na lu mu ci développé tuuti du ñu wax lépp parce que comme que dañuy doog a démarrer euh, nekkee di développé lépp dañuy jéem rek après yàlla baax na quoi. est-ce que tamit mënu leen a woo politiciens yi ci Thiès ñu mën leen a jàppale ku ci mel ni Maodo Malick Mbaye ku ci mel ni Babacar Diallo nee naa bu ma limee damay juum te bëgguma lim. ah non ñun ñun bokk ñu ci jeunes yi nga xam ne dañuy toog di xaar gouvernement wala si xaar ku ñu dimbali. Mhm. dañuy nekk ci waar yi rek ba euh, kuñ ci fekk rek ñoo xam ne fekk nañ mais ñaan ngeen yàlla ngeen di demal seen bopp ba ñi nga xamante ni ñooy ay autorité yu nekk Thiès ñoo jàppale leen. Ah, loolu autorités yi boo nee autorités yi ñun ak ñoom ñoo bokk li ñuy liggéey ci Sénégal parce que ñun ñëpp dañ fee nekk pour le développement de notre pays defe naa ñoo bokk benn benn combat bi kenn warul toog di xaar sa morom foofu laay waxee ni amuñu droit toog de dañuy xaar euh, benn politicien wala benn autorité di ñu jàppale dañ ciy nekk ba ñoom buñ gisee ni amaana mën nañ ca seen loxo pour mu avancer. waaw te loolu la ñuy xaar aussi. mais loo loolu dëgg la yéen ngi ci biir mais tamit ñoom it dañuy ñëw jël seen loxo def ko ci mu gën a gën a am doole. <laughs> jàppal ma jàppal rek. kon sama gaay yi ñoo ngi woon fii ci Manufacture des Arts muy première édition bi nga xamante ni Ouz création moo ko organisé muy fii Manufacture Ouz nag dafa ne xale bu ndaw boo xamante ni macha allah li muy dagg macha allah Ouz dama bëggoon da nga profité joxe sa numéro léegi pour ku la bëgg a jot. waaw sama numéro mi ngi nekk 77 050 72 39 boobu moo nekk whatsapp tamit euh, beneen numéro bi 77 586 92 53 yooyu noonu ku ma si woo ma si jot incha allah. waaw incha allah nee na joxe na ay numéro am ku ko ci woo ko ci jot di nga ko ci jot man nee naa Fat Bintou maa ngi dem maa ngi ñëwaat nee naa bu ma jógee ci uus bàyyi ma borom salon yi. bayuma kordañee yi bàyyuma kenn maa ngi ñëw te bu ma dal sen kaw kon dama nan sama gaay big up fekke fan mangi ñew dal sen kaw ala ciao fo womanke ala fa ala laki yubi bay ni kala bay ma dim subali mai sumanoi sumis pinye pelukui سونی کھلو دو چیرے انتام ملک سے کھلنی وئی سپائی وئی ایڈم بھئی موئی سی آئی دومو یایو دومو یایو پکیتون لائی بوئی خلبی خوچی جمانوئی دیجے پکیتون borom bés FM lay way alalake ema sumage fumanke alafa alalaki yubi kalabay ni kalabay matyam subalimay ay may sala kumandon yai majre degen boy be ali bigim bay dan ñu ñu yalel mom bintu moy borom ci efo ki mako bëgg sama maddi musulu Jangan ben yo jam ñu ñu yalel mom jam ñu xel ñu yalel mom mak sama yag nga bintu mari moy mari moy sumu jigen bangit ni ci Ousmane s'il vous plaît Ousmane na ñëw Pambay di ko wéyaale bu ko defee nag muy une première fois lu amul fenn Pambay di ko wéyaale moom tamit mu daal di ñëw indil ñu li nga xamante ne mooy dernier passage.